mbokki Sénégal mbokki bitim réew xéewal ñëw na ci askan wi de soxna na fi Fallou Fall mu sëñ Abdou Karim Mbacke andil na leen nag ay produits yu mucc ay produits yoo xam ne xéewale na ci askan wi savon miracle bi xam ne day faj siti waaye sama kéemaan gi geneen kéemaan a ngi noonu muy kéemaan goo xam ne ci karaw képp koo xam sa karaw day dama mi root xam ne boo ko xam ne am yaram boo ko diwoo di nga wàññeeku miracle boo xam ne traitement roñon lay def nga xam ne am nerf sciatique ñi nga xam dañoo am rhumatisme wala ñi nga xam ne dañoo am fatiguement général boo xam ne pour sportif boo xam ne day faj réew mooy li xam ne moom lañ leen indil muy xéewal gi ñu andi réew mi kon yéen nga xam ne ca golf la su ko defee seen aajo faj mbokk yi ñuy teewlu chaque fois ci luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey mercredi premier janvier deux mille premier février deux mille vingt ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay ma ci ànd ak Boucar Ndour kon maam ma janvier moom dem na gars yi nañ ko kaas janvier dem na Omar maa ngi lay nuyu di ziar di nuyu mbokk Sénégal yëpp rawatina mbokk internet Lutte TV ni nga ko waxee rek tey la mercredi 1er février 2023 ñu ñëw ak yéen si yéen kaay di nuyu waa Mbirkilaan FM depuis Saloum Vice FM depuis Gambia di jëmoo di jë Babacar Sarr ak seen auditeurs yëpp di nuyu Père Ndongo Cissé depuis Gambia ak peneen Père Lamine bi Père Idi John tam depuis Gambia ñoo koy nuyu Papa Lamina ah. mhm. suñu làmb Boucar ci xëtam gu njëkk dafa daal di ñëw ak ñun ci ndaanaan bi nga xamante ne ni takkoon na ngeen ba tekki ko muy Rock Mbalax yaakaar naa ñi bokk na ci mbër yi ëpp kële de. waaw bokk na ci mbër yi nga ëpp xam te ni day Omar def nañ seen preuve ci làmb Euh, wane nañ seen bopp tamit ci làmb def am nañ ci expérience am nañ ci vécu macha allah moom rok mbalax man ma journal bi dalal nag borom 1200 prises yi ah. Euh, événement boobu na ko fi. waaw moom rok mbalax 1200 prises. moom rok mbalax nag tey moom la journal bi dalal rek ah, muy wax si choc bi nga xamante ni moo war a am le 5 mars incha allah rabi. diggante rëg-rëg ak Sa mu mel ni nag nag jël na lu tolloog 65 pour cent jébal ko ki nga xamante ni tey moo di rëg-rëg si kanamu ki nga xamante ni tey moo di Sa Thiès maanaam daal jàpp na ne rëg moo nekk favori ci kanamu Sa Thiès Omar. yaakaar naa ne am na solo bu ko wute gis-gis mooy waral marchandise di jar nee na Sa Thiès bi daf cee war a jël temps lu ñu bëri wax ak moom li mu wax wute na trop. nee na Sa Thiès bi dafa war a jël temps xam nga nag boo seetloo tey Sa Thiès peut-être mën na am pression mën na bañ am pression. parce que boo seetloo tey digganteem ak euh, frère am Balla Gaye 2 ñu bëri dañ xaarloo woon Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 attaqué Sa Thiès ñu bëri même buñ ko xaarloowee dina bëgg a xaar parce que du bëgg a euh, lii conseil yu nit ñi waaye Sa Thiès ku am xam ne mbër la boo xamante ni tey mbër mbër buy attaqué la maanaam mënul xaar lu yàgg ak lu mën a xew arbitre bu sifflé rek day bëgg a yow jàll ci leneen waaye daal euh, kii di Rock Mbalax bëgg-bëggam mooy que ne Sa Thiès taxaw xaar Sa Thiès taxaw Rock Mbalax wax ni bu ko defee mën na ci am li mu bëgg waaye tamit nee na adversaire u Sa Thiès bii di Reug adversaire la boo xamante ni kenn mënu koo manœuvrer kenn mënu koo ni dama la fiy jëlee rek ci ay secondes. waaw nekkul mbër bu ñuy man yi maanaam koo xamante ni tey da koy malmené maanaam da ngay ñëw maanaam defloo ko li nga bëgg non non non ñëw ngeen bëre yéen ñaar teg tegi kele sul kere te yaakaar na ne loolu Omar bu ñu ko defee nit ñi dinañ gis bëri ji ne nee leneen li nga xamante ne ni wax nañu ko am na nu Sa Thiès di bëree moom mun naa am nag surprise bu ko bett ci àddunaam lu ko gën a bett ci àddunaam mun na ko am ci combat bi waaw mun na ko am ci combat bi parce que Omar rëg-rëg mbër la boo xamante ni tey peut-être am na nuy waxee ay qualité am sax tam ñi ñu foog ne da nga ko faral wala da nga ko nii wala da ko laa waaye rëg-rëg ku seetaan parcours am mbapat bëre da daan bëre clé sur clé da daan nekk mauvaise posture sax du affolé dina bëreek yow si sang froid si calme kon yaakaar na ne kooku noonu mbër buy bëreek moom tey peut être bu ñu la naan defal ndànk wala bu ñu la naan teylu ko rek peut xam ay qualité ma tax waaye Sa Thiès mbër la boo xamante ni tey Omar tey dafa def ay preuve am daan ay moromam si balaa ngaa comprendre sax fekk daan la ba jéggi maanaam tey habitude boobu noonu mu amoon mu nekk ci moom ba tey ba tax na képp ku jàkk taxaw ci kanamam day day day jàpp ne day am gëm-gëm ne moo la mën dalee faxas jàll kon moo tax ma am yaakaar ne combat bi mën na nekk combat bu neex. li nga wax ni Boucar wax na ko ku la ci wax dara moom yaakaar naa dafa xamul ay jaar-jaaram parce que ku xool rek rek ak temps bi mu téye mbapat lépp lépp lépp lépp ku dul ndaanaan mënu ko champion la ndaanaan la waaye day bëri xale ba nga xamante ne ni tamit ndaanaan la champion la. mu nekk làmb joo xamante ne nii li tax ñu tuddee ko le combat de l'année parce que ñaari mbër yi ñoom ñoo wane lu toll noonu. ñaari mbër yee wane lu toll noonu waaye ñaari mbër yi ñoo toll noonu Omar parce que ñaari mbër la boo xamante ni te yaakaar naa ne a boo tardé combat boobu di nga tardé combat de l'année parce que ñaari mbër la yoo xamante ni mënoon kii moo mën mën nga def nag say pronostic jox am koo jox favori waaye ku si nekk favori tamit légèrement ngay mën a nekk favori. favori moom mënul ñàkk sax xeex ñoom ñaar ñëpp nekkuñu mbër yoo xamante ni tey dañuy fësal xeex si seen combat ku si nekk tey bëre doole mooy li li li ngay gën a fësal si combat te yaakaar naa ñaari mbër yëpp ku si nekk néewoo kàttan télé woo bëre. néewoo tan télé woo bëre ci tuuti journal ba suñu làmb bu ñu ngi ciy gis. ñu fësal ci suñu papa déggul mu yëgal nit ñi que ni combat Modou Lo ak Boy Niang numéro 2 taxawagul. waaw parce que coow li bëri na lool ñaari mbëri yaakaar naa ne jamono jii nii promoteur yu bëri ñu ngi koy négocier mu mel ni combat bi dafa nekk en gestation euh, Boy Niang nag ñu ñu ngi xamal ne côté am xaw a takkee parce que Modou Lo il paraît jot na avance sur cachet si Boy Niang la desee ñoom ñooy négocier gis nga keroog la fois ñu ne déggul fait monter les enchères mu mel ne nag euh, côté ñoom Boy Niang dal la affaire bi taggee Père de Gaulle nag moo gën nag di wax wala di leeral daal di xam ne que ne combat Modou Lo Boy Niang taxawagul. taxawagul waaye am na combat bu taxaw bu war a fekk ji le 30 avril diggante Lac ak Quench njaxas gi bu écurie Grand Dakar moo dina fa bëri ak buuba. dina fa bëri ak booba le 30 avril la incha allahu rabbi loolu nag yaakaar na ne Omar Njàmbur production moom moo ko tëgg na xam na ne moom Lac Rose Quench combat bu war a neex lay nekk. combat bu war a lay nekk bu kon combat bu doy waar waaye Youssou Ndour Mor Kankan revanche Balla Gaye numéro 2 ak Tapha Tine. revanche Balla Gaye 2 Tapha Tine moom moom lañ andiwaat rek wala moom la Ibulaay ah, en production andiwaat rek Youssou Ndour bu école de Balla Gaye 2 ak Mor Kankang bu Cheikh Mbaba mu war a nekk nag tamit combat bu neex a neex a neex combat espoir kii dafa jóge si victoire digganteem ak Alioune Sèye Junior kii jóge si défaite digganteem ak ki nga xamante ni tey moo di Caatu Yoff combat bu neex. non Youssou bi mu bëreewee Caatu Yoff ba pare bëreewul ak Mbaye mel ni bëri na ak Mbaye Diouf daan ko bëri na ak Mbaye ko Iba Mar Diop Iba kon bëri ak Mbaye Diouf daan ko waaw kon yaakaar naa ne ñoom ñaar ñoom ku si nekk Omar si victoire nga jóge ginnaaw génnub àdduna Serigne Modou Niang le ministre des sports monsieur Yankoba Diatara def na délégation dem seeti ko wala seeti ay mbokkam jaale leen bokk ak ñoom naqar bi dem jaale Omar pourquoi pas sax yóbbu jaxal mu mel ni daal le ministre Yankoba Diatara dem na daal euh, rendre hommage ki nga xamante ni rek tey moo di Serigne Modou Niang nekkoon daal nit ku baax nit koo xamante ni tey Omar Euh, ni mu koy waxee rek am na daal lu mu apporte apporté na édifice am si làmb taal na fi ay champion créé na fi ay champion propulsé na fi ay mbër tey ba ñu dégg daal kon yaakaar naa ne tey làmb moo ñàkk. làmb moo ñàkk bokkat ci champion yooyu mu taal bokk na ci Papa ndax yaakaar naa ni digganteem ak bàcc seeraas moom moo ko tëggul. nee na Papa Sow nee na daal je suis rentré dans la lutte grâce à Serigne Modou Niang mu mel ni daal tey ñi ñi tax ñi mu tax ñu nekk ay mbër bëri na lool lool lool lool. ku su alin ne Alioune Sarr tamit dem nañ fa ah Maxime Bergane nee na ak lu mën a xew ah, euh, euh, euh, maanaam julli tàkkusaan sax moom moo ko ji moom moo lañ ko daan jiite suyu bëree bëree bëri bu ñu dajewaan waaye ak lu mën a xew daal doomam tamit di njaga ah ñaa nee na papam daal vraiment était un multidimensionnel Gris Bordeaux nag nee na Serigne ñaa Niang était unique. Serigne Modou Niang nit la boo xamante ne nii Boucar bu seede yëpp dajaloowee rek nga xam ne nit ku baax la. yàlla na ko cat ba ñu jiitu ci bàmmeelam suñu borom bi jéggal ko woyofal suuf ci kawam te bàyyi walla teg loxo njaboot gi. làmb ji waroon a am ci diggante Ama Baldé ak Gris Bordeaux Ama Baldé promoteur bi boole dooleem moom ak Jax ak Fallou Ndiaye mujj ko def mbapat le 6. incha allah wala le cinq incha allah ñu tegal xale yi six millions ci arène nationale def ko trois catégories. ñu tegal xale yi six millions incha allah rabi mu def ko trois catégories Omar diggante Jax production la nag nga xam ne moom moom il est le number a ànd ak nag ak ki nga xamante ni tey moo di bi a tëgg bés mu leen si mu nekk nag ñetti yoo xamante ni tey amal bés tëgg làmb war a nekk 6 millions fële sa arène nationale ñetti catégorie la nag Omar la war a nekk loolu yaakaar naa ne nag mbër yi ah, war nañ fa mën a ñëw nag wane seen bopp. war nañ faa mën a ñëw wane seen bopp Lamine TV tamit ci beneen côté bi Boucar ñu teg benn oto ak cinq cinq cent waaw Lamine ak Zal gis nga leen rek ah borom Lamine TV vraiment li gars naan tout droit kon tout droit la ba Fatick incha allah rabi le 4 février Lamine ah Lamine TV ak Zal rek mu mel ni ñu ngi tegal mbër oto ak cinq cent mille francs samedi incha allah rabi bët set dimanche ñu door a ñëw Dakar kon nag weekend def fa la. jigéen ju mën góor. ki nga xamante ne ni tamit waa dëkkam ñu ngi koy bàyyi xel jël na ñaari dat ci dëkkam. waaw Sall Ngari nee nañ après son premier événement fële nga xamante ni rek moo di sa farabugum Jira Sall nee nañ daal jëlaat na ñaari dat foofu sa diwaanu Kaolack. yaakaar naa ni loolu moom yokkute la bu ñu demee ba jigéen ñi di ñu leen di gis ci làmb rawatina lutte simple suñu xel dafay dem ci suñu maman Ndeye Ndiaye Tyson Bébé Saloum def na ñeenti weer Espagne ñibbisiwaat na nag ci réew mi. ñibbisiwaat nag si réew mi donte amul combat waaye am naa yaakaar ne bu ñibbisee moom Omar combat am war na mën a taxaw nag bu gaaw a gaaw a gaaw Bébé Saloum pourquoi pas mook Zarko pourquoi pas mook Gora Sock pourquoi pas tey ñi mu war a mën a bëreel adversaire yi bëri nañ fi Omar moom Bébé Saloum ça dépendra rek si ñi mu bëgg a bëreel. Bébé Saloum Alioune Seye numéro 2 yaakaar naa ne làmb la joo xamante ne nii làmb juy neex la. Bébé Saloum Alioune Seye 2 combat bu neex a neex a neex. mooy combat bi loolu ku ko tëggoon tëggu combat bu neex Omar yaakaar naa ne mbër yi moom adversaire yi bëri nañ fi. waaw peut-être mbër yi ñooy taamonte seen biir ak moytuwante bi am seen biir rek ak xalal yoon bi waaye yaakaar na ne mbër yi moom tey la mbër yi gën a bëri tey la promoteur yi gën a bëri tey la xaalis yi gën a bëri waaye yaakaar naa ne tey la làmb a rappelé ay journée yu neex c'est que nag nu mbëri def ci am ay mbër yoo xamante ne bu wér dañuy ragalante seen biir bu ñu jógee naan maa raw kii ak kii sama xarit la kii sama sëriñ la yooyu a ñu war a bàyyi ku ñu fay da ngaa war a jël nga bëri da ngay gis sa mbër boo xamante ne Omar deful dara ci làmb teg boppam foo xamante ni tey tey defoo dara si làmb yow nekk roi des arènes roi des arènes sax gis nga ko fi nekk moo nekk roi te mu ngi ñëw di wàcc di bëri booy yow ko roi des millions aj sa bopp foo xamante tey yeggoo fa loolu Omar yaakaar naa ndax sa bopp la rek nañ bëri seen biir ku ci bëriwul ak sa morom de wax dëgg yàlla di nga sonn parce que nag boo jàppee paay di daan bis dina la jot ñu jox sa morom nga jàpp ni paa nga wér ba léegi ñu jàpp la duma la daan la nga tege nga toog yi benn côté. am na solo dafa mel ni Omar leeral moo si gën loolu moo si gënoon a fës. loolu moo si gënoon a jox leen dig daje ba suba ak jàmm incha allah. mbokki Sénégal mbokki bitim réew xéewal ñëw na ci askan wi de soxna na fi Fallou Fall mu sëñ Abdou Karim Mbacke andil na leen nag ay produits yu mucc ay produits yoo xam ne xéewale na ci askan wi savon miracle bi xam ne day faj siti waaye sama kéemaan gi geneen kéemaan a ngi muy kéemaan goo xam ne ci karaw képp koo xam sa karaw day dama mi root xam ne boo ko xam ne am yaram boo ko diwoo di nga wàññeeku miracle boo xam ne traitement roñon lay def nga xam ne dañoo am nerf sciatique ñi nga xam dañoo am rhumatisme wala ñi nga xam ne dañoo am fatiguement sédentaire ak frotté boo xam ne pour sportif pompe miracle boo xam ne day faj réew loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indil muy gi ñu andi kon yéen yëpp dem leen seeti soxna na fi fàllu faal fële nga xam ne ca golf la su ko defee seen aajo faj